waaw xam nga man man ko man man man man damay seet à direct mën nga nekk fu ne fu la neex man lii parce que man yàlla damaa may loo damay jàkkaarloo yow wala ma jàkkaarloo tele bi wala ma jàkkaarloo rideau bi wala ma jàkkaarloo ma xam lu xew barke Seydina Muhammad am na koo xam ne bu mu ko xoolee ay lii ay ay xar moo ko boo demee ba bis lii côté Tiwaawoon yii côté boobu lay feeñee te yàlla xam ne dafa dem ba côté boobu rek gis am koo xam ne dafa dañ koo jëla valeur ay ay ay ay chaîne or yoo xam ne parce que ëpp na cinq millions moo ko lii de wax dëgg yàlla gis ma fu mu feeñee ba tey feeñu am koo xam ne nekk na hôpital man bu njëkk ba dama doon wax man léegi laa bàyyi wax loolu rek mu nekk hôpital benn diraanke ñëw wax ma ma ma koy xool ma wax ki ma gis de gomm dina lii ma waxal rek waxal mu force ma mooy mu ma ba mu wax lu moo ko ki ma gis ne gu gis ma mu mu ñëwaat une semaine lañ si toll. kooku génn àdduna xam nga loolu lépp yàlla mooy mooy mooy may nit ki loo xam ne yàlla mooy may nit ki parce que boo xoolee yenn ci yàlla yuusufa bu mu nekkee ci prison yi dafa pour pour nit ñi wax leen ah man tey tey moom gis naa gis naa tey ay ay ay ay ay loolu ay fruits ay fiiri la moom la ni moom la ni añee tey ñooñu wax ko déedéet loolu lu mu mën a nekkee parce que moom gis na ko parce que yàlla da koo may loo xam ne Euh, day gis lu ñëwagul loolu mu ne nekk pourtant loolu moo amoon fekkee buur bi tombé muy def feetam pourtant muy def feetam après ni indi euh, firiiru ak yoom ni wax ah Youssouf di wax na dégg ñeneen ñi gëm nan ñeneen ñi gëm nan xam nga loolu xam-xam du kaadal nit ki euh, xam-xam yàlla mooy yi lu ko neex def ko si nit ki man toog ci si télé di wutu di wut lii parce que def ma di wut lii parce que man maa nga am sama teraanga bu bari pare kon wut ma di wut xaalis ak wala lii bu ma wut xaalis damay wax carrément ku ma joxul temps duma ma la defaral waaye damay liggéey ba nga gis nga doo ko fay man noonu laa liggéeyee. ma gëm naa ne yàlla nag am na ku ne ak li la yor man man gëm naa ne yàlla damaa may man yàlla moo damaa may li may def nag xam naa du si man yàlla la parce que lu neexul yàlla du antu. lu neexu yàlla nit ki looy def te neexu suñu borom du antu parce que jamono yi bu ma nekk si néeg ñax bi di julli ay rakka parce que julli ay rak nga ñaan suñu borom wax ma nak euh, ñaan ngistal de nga ñaan suñu borom borom nga xamal ko man dama nek si ay jaf jafé nga wax ko li dama bëgg nga nga parce que yalla bokoy tag bokoy tag mais ni ku koy tag nga xamal ko mo kese mo fi nek lokoy ñaan di joy di joy man dama do ñaan bay joy di man kese ñepp tut yalla xamna ne jaamay jàpp ba sepp julli ñepp teud parce que neeg ñax bala nekkon ñew ñi ngi teud seen bâtiment man ni ma sama neeg ñax moom laa amoon ma ni parce que dem na ba instant ni ma nit ki àdduna bi boo amul dara kenn du la faale dem na ba instant ni kenn du ñu faale kenn lu lii ji reer bi day manqué lépp du manqué ma xam ni lii yàlla rek moo ko mu ne ma jàpp ay julli ñaan yàlla na ma yàlla dind si lii na ma yàlla may xam-xam bu bari te barkeer yàlla may ma teraanga bari ay alal bu bari ma si jàppale nit ñi te loolu moo am bari na jàpp naa lu bari tey ñoo xam ne loolu ma am te moo tax am na guddi yoo xam ne moom si la ñaan suñu boroom rek yàlla dala man maa ñaan yàlla na ma yàlla may xam képp ku ñëw si man ma ñaana nga nga gis moo tax bari nañu ay borom alal ba si ministre bi nga xam moom ñaan ñaana yàlla ma def Macky Sall fal ko teral na ma ñeneen ñi ne ñaana naa leen yàlla def na ak ñi nga xam dañoo am problème kayit ko wala loolu yàlla def na ñaan naa parce que man da il faut ma xoolal la pare ba doog a xam lii dina sot ba du sotti ma doog la ñaanal man noonu laay def bi jour boobu bu may maa ngi ko fàttaliku parce que quinze laa la yaakaar naa woon am ama quinze yàggul boobu maa ngi dëkk si néegi ñax barke Seydina Muhammad billaahi wallaahi néegi ñax laa dëkkoon waaye bu guddi googu te parce que fu ma ñëkkoon fanaan sax dañ ma fa génne woon parce que boo am maa ngi feebar di sëkkat kooku wax ma wàccal wàccal lal bi mu génn mu wax ma génn néeg bi amatuma fanaan si biir waañ laa doon fanaan waañ léegi bu may fanaan waañ boobu parce que néeg sama yaay néeg benn néeg la la maa ngi doog a jóge daara ba amu foo fanaan néegi ñax boobu laa doon fanaan léegi bu may fekk néeg boobu néeg néeg sama néeg yaay moom xam mën ma fa fanaan parce que xale yi jigéen ñeeg yooyu yëpp ñoo fa nekk amu doo mënoo fanaan léegi damay génn si waañ bi si biir waañ bi laay lool foo laay tawteeg bu pare bu nemee bu demee ba bés sët ma jël lool gaawant balaa ñi di ma gis gaawantu jël loolu dem sama yaay bi xëyee togg foofu togg léegi yàlla def may may commencé def ay ñaan ba ba laaj borom kër gi moom nu ko ma laaj borom kër gi ma wax que mën naa fi samp benn néeg néeg ma ma wutu ay bantak ay yooyu ay def defal fa sama benn néeg di ñaan di ba yàlla la may ma teraanga bi du benn kër gi laa am yàlla may na el plus 4 sous ba xam ne si sonn sama sonn fu mu dëkk yàlla may na ma kër gi may na ma yeneen kër am na kër yoo xam ne sama mbokk yi ñoo si nekk tey bu mun mun ma leen génne du leen génne am na te lool awma ko woon kon nga gëm ni il faut nit ki gëm ni yàlla amul lu mu mënta def ci nit ki man de gëm naa lool gëm naa yàlla lu ma la may Macky président Macky Sall sax yàlla lu bu mu koy may may ko à direct parce que yàlla bu may à direct day diis mënoo ko at noo ko da koo jaale sa ay mbooloo jaale ko si population bi ban fal ko wante boobu moom tey buñ ko laaj kan moo la jox nguur ji lan lay wax du wax nit ñi de yàlla moo ko jox parce que yàlla fan la ko jaarale sa population bi kon yàlla lu mën a may yëpp dafa am fu mu koy jaarale man gëm naa ni man mbir yàlla may na ay jinne yoo xam ne lépp loo xam ne bëgg naa ko si teraanga si alal dem ne ñaata oto lañ may jox yoo xam ne niiti gun ko yu bees tàkk ñu ngi fi bi la indi bi la bi indi kii nu sax bi la doon jël si pour nga xam ne yoon bi boobu niiti gun ko ay yeneen yeneen te yooyu am na yeneen yu oto yu seer yoo xam ne ñu ngi ko tëj yoo xam ne ay cent et millions lay lay jar kon ma xam ni yàlla mooy dogal man comme ni ma ko waxee taxaw ma si tele pour wut alal wante man képp koo xam ne social man man laay dox moom képp koo xam ne yaa ngi jaaxle wala yaa ngi am problème boo ñëw si man doo dugg sama biir kër nga génn na loxo kese comme keroog rek benn benn maire bu ñëwee mu wax ma dama kër ga aw ma fa dund ma wax ko amoo fa dund waa léegi ni dem léegi ma yóbbu ko ba si boutique bi ma gën ma jox ko ca cee saako ceeb ak diwlin ak meew ak yu war a dem mu ne mu ne ma wax ma woon jox ma ko xaalis moo ko ah yow yow maire lan nga ma wax kër ga aw ma fa dund aw ma fa dund wala man xam la laa laa gën a bañ maire bëgguma lii bu fekkee da ngaa soxla xaalis bu mu si rus damaa am problème temps ma yëkkat jox la ko waaye yow nga wax ma dama boo ci ma kër ga dund dund nga ma wax ma dem si boutique bi jox la nga ni jox ma ko xaalis ma ko eh fekkee lool la moom bàyyi borom boutique bi wax ko kon jox ko fa 1000 francs mu di déedéet kon bàyyi ma jël saako ceeb bi ak yooyu ma ko ah loolu laa bëgg ëllëg boo amee looy lii da ngay ñëw parce que boo gisee ma wàll ñi ñi nga xam ne day ñëw di wut dépasse yooyu bëgguma ko may fenn da ngay wala di indi ay ay ordonnance yoo xam ne oh, nekkul ordonnance parce que dañu yaakaar jàngu ma wala bu ma liiree damay xa ay date yoo xam ne kenn xamul lu muy doon ni wax man bëgguma loolu bañ naa loolu sax dama am pharmacie boo xam ne par bon laay fay képp ku indi ordonnance ah duma ma la jox noonu da ngay dama dama lay boole sama safoor mu yóbbu la ba si pharmacie kooku jox la ay garab bind bon bu ñëwee ma fay. képp kuy li ma damay bëgg képp ku ñëw si man du ma wut di wut dara na wax li exact li ko indi rek waaye bu ma wax dama am lii ñu jox la lii di loolu te du si am. noonu sax man ak ba léegi damay ànd na ñoom gis nga man comme lu ma koy man du ma rëy rëylu parce que xam naa li metti parce que damaa jóge fu metti parce que ñi si ñàkk laa jóge ba yàlla day de dafa ma teraang kilifa bu ne amu benn kilifa foo mën a teg sa tànk te mën ma fa sama tànk mën ma fa teg sama tànk loolu moo tey moo tax xale parce que yàlla teral na ma may na ma lépp moo tax sama ñoo ñi may ànd ba tey ñoom ñooy ànd du ma leen xeeb du ma leen daw du waa kër gi comme ni mu la ko waxee taayel ma sàccee cent et quelques millions def naa si ay caméra def naa fi benn box pour ay gardien ma képp ku ñëw bu ma la xoolee si caméra mu nekk koo xam ne dama la doon ànd mu dama doon ànd dem dama koy wax gardien bu ma wooyee moom diw moo sama ko bàyyi mu dugg ñoon aw ma sans intelligence ñoom parce que damay parce que ñoo ñaar doon dama wax bàyyi bàyyi mu dugg waaw man man du ma rëy du ma rëy rëy waaw maa ngi ne jéem a lii parce que wax dëgg yàlla ku ñëw si man dama la wax góor góorlu nga liggéey nga bañ a jël yëf jaambur nga góor góorgóorlu boo góorgóorlu rek yàlla dina dimbali am na ñu bari ñoo xam ne sax wuta naa la ay oto ay oto pour ñu si daw dépassé yooyu am ñoo xam ne maa ngi bëgg wuta ay place pour ñu si liggéey parce que man loolu laa bëgg man man képp ku ànd man rek damay bëgg nga nga feeñ sa nga feeñ si sa lan laa ko mën a bëgguma ñi may àndal ku leen gis di leen yërëm damay jaral ma jël li ma mën defal leen wala ubbi leen li loo xam dañ si jàpp ñi ma mën a defal pour ni paas ci ni paas ni dem bitim réew liggéey ñu ma mën a jàppale ma jàppale leen. dañ ni nga may ne ay parrainé lu ma dem yóbbu ko xam loolu bëgg naa ko def lool bëgg naa ko wante xam nga 5 ans 85 ans li li wóogu ma waan bëgg naa ko def parce que ma song song loo xam ne. ëllëg si biir duma ko àggale dama bëgg balaa ma ko song xool si def si ay lii nga xam ne chaque année bul la loolu def ay conférence ay gàmbu chaque année boo bul la ko nit ñi jàpp ne yow nga nga fi naa ko sa bopp. moo tax lépp lu may def man xam naa loolu sax jour maa ngi koy xalaat man mii di defal di wut ay hectares di si defal euh, jumaa ak école ak ay yooyu ay presque loolu ëpp na au milliard ba gisee ma koy def ah am na leneen bu bëgg ma dem ba si biir di def ay gàmmu ay yooyu il faut ma xool ko ba pare xoolaat ko ko pare ma doo ko mën a def. te man it sama âge bëreegul 26 ans il faut nga def teey rek nànk-nànk nëbbatu tuuti ba si kanam. noonu non jafewul parce que euh, man na faal côté dëmbës ko si teen poli rek. man man man man man man ku ma woo di ma jot parce que comme lu ma la ko waxee man aw ma saa intérêt di fenn du ma nax ki nit ki dama wax lu am amul. ku ma woo si benn numéro benn numéro laa yor man ma benn numéro benn numéro rek laay woo. lan may wowe 77 277 50 61 sept ci si un da nga ni na faal sama kër la nek ni fi bo gisee tay may wax dama lay defal ba nga gis nga fay buguma wala taxaw wa ablay na wala lek na sama te lima waxon gis mako motal lepp luma ko sama la xam nga nit ki doko doko doko lan man sama kër laa dëkk bañ naa lool ba instant sama kër heure boo ñëwee sama kër nga may fekk boo ma fekk bi nga fekk ma sama beneen kër gi ku ma ñëw ku ñëw daal moom instant ma ma xool sa mbir mu méngoo parce que nit juróom-ñeent bunt la am mu méngoo borom alali comme mel ni xam nga taximaan boobu nu sax euh, taximaan boobu am ba mi ma defoon ñaan tey taximaan boo xam ne dara defoon naa ko ba yàlla def tey mu nekk milliardaire di jàpp li ñu bari kooku war dégg yàlla ni may defar sax ay tonne ciment yu bari ay ay fer yu bari jàppale na ma si kooku ku mel ni kooku bu ñëwee tey ba ma xool parce que taximaan ni mu demee woon rek damaa yo jamono jamono bi ma nekk dégg néegi ñax bi may ma dégg may woote téléphone taximaan dafa muus nag ma ma dégg may woote téléphone mooy wax léegi da nga jël gala galaaj boobu boole ko lii léegi man ma yaa ko bàyyi ma xel maa ngi si gannaaw nekk moom mooy bàyyi xel moom ma seen bi yow doo wàcc de doo wàcc te defoo ma ay ñaan mu ñëw ma wut ko fekk mu taxaw juróom-ñeent bu ma defal ko ay tettal ay ay sarax ay yow mu def mu def rek yàlla def tey tey moom mooy faj guum gàcce yi te taski la yoroon motax bumi bu muy bo ñëwee ci man damay xol bu ma xoolee mu mengo li ma la wax boko ko ci si yalla yalla def nga nga nek borom alal ci yalla wa ni nga xam dañu bëgg nguur damay dafa ñaan lo nguur ma ay secret la ma muti loo xam koy def boko ko ci si yalla xam nga gis nga li mu ni si ay sondel man ay sondel yo ay man mëna ci tal nit ki. mun naa si fay nit ki wante du ma comme lu ma la koy du ma si def lu bon wante xam nga boroom xam-xam dina xam lépp sondal yooyu tey boo ko indee am leneen loo koy boole ay mbir yoo xam ne boo ko boole boo ko taalee si kattan day takk ba faw am na loo xam ne boo ko defee boo ko fayee kooku day fay tuutu amati dara comme noonu la yàlla tere gouvernement bu muntu doon tey am na secret yoo xam ne sondel boobu boo ko boole ay mbir ay mbir jinde nga bëgg mu jóge fa dafay jóge fa force du si mun dara boo bëggee mu toog fa nag ba faw di si kattuñ yàlla dafay toog ba faw loolu ay secret la ku wut nguur moomut comme ni nga ko waxee am na loo xam ne ay tett loo xam ne la ko joxee ni wala indi drapeau réew bi nga xam moom nga bëgg bi nga nekk ni bëgg nekk président drapeau ba mu la la laaj boo ko boo ko indee na am lu ñu si defal si kattuñ yàlla de far force di nga ko jot waaw maa ngi nuyu waa mën na faal di di leen euh, lii parce que waa mën na faal da wax bu ma soñoon moom dañ koy dañ koy dañ koy defaraat waaw defaraat man ndax sama réew la man lan laa mu nee da sama fi laa dëkk fii laa yaroo fii laa liyee kon bëgg naa daal lépp lu si lu lépp loo xam ne dañ ko def si lu baax dama ko dama ko si def di si di si di nuyu sama papa ak sama yaay ñu ngi dund maa soxla na yàlla gudd seen fan waaw di di nuyu sama euh, xarit bi ak Fallou ak ñoom kii El Hadj ak ñoo ñëpp maa ngi jàppale ma maa lay nuyu di ñëpp wax dëgg yàlla ñoo laa am lu may tàggatoo wax dëgg yàlla.